ami téléspectateur bu Actubuzz maa ngi nuyu di leen leen wax ne amati naa mbégte bu rëy contentement di leen seen émission bi mooy rendez-vous des artistes ñaa la nga ko ci man nag saa ko déggee di xamal seet nañ daanaan tey ñu fii seet ki nga xam ne mooy Sokono Stress borom Barcelone Stress borom Sénégal Sokono Stress bi nga xam ne ñaa la bu ñu ko gisee xol yi day daal sedd xel yi day daal dal tey moom la seet fii ñu war a ma maa ngi lay siyaar frère. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna wërgal képp man Sokono Stress borom Barcelone maa ngi am mbégte di am contentement ci dalal bi ma waa Actubuzz dalal donc di am mbégte di leen bëggee bu baax di xaar nag waa ji lu muy wax ak wala lu ñuy laaj <laughs> en tout cas duma ko may dara donc di wéyal question yi rek di la déglu. comme nee moom duñu duñu may dara sànqat ñun ñi nga xam ne dañuy téye micro ñun tamit duñ ko may dara tax na fi may jëkk a duggee Soko rek mooy Soko euh, sa premier jour bi ngay njëkk a dem euh, Barcelone tukki bi naka la demee woon danga nga jël voie normale wala da nga jaar ci gaal gi ah tey nag <laughs> xam naa ne tey waaj nga lii suñu <laughs> internet yi fii ñëw yëpp kenn laajul loolu ah kenn laajul lu mel noonu damay gëstu gëstu nga nag damaa gëstu parce que da nga takku booy <laughs> dinaa man sama première euh, dem Espagne donc c'était en 2006 euh, mu nekkoon moment boo xamante ni donc dama juddoo yaraax màggee yaraax yaroo yaraax donc mu dëkk mu nekk dëkk boo xamante dafa jege plage bi donc ndox mi géej gi et puis bon ñu toog ba un moment donné ñu ni am na ay gaal yu dem Espagne ah. man sokono stress ci ay gaal laa dugg dama mbëkk ma dem gaal gi dëkk dëkku falaale ba dama mbëkk dugg dem ci gaal laa jaar mm. ci gaal yi nga jaar dem dem Barcelone mun mm. nañ xam un rek dem bi euh, maanaam kii bi géej gi naka la demee woon oh metti woon na metti woon na trop ndax tey euh, ci gaal yi ngay gisee lu ne yow boo ci jaaree ba noppi sax danga naan àddina dara dootu la safati quoi xam nga da ngay yemale Angleterre ak pomme terre da ngay yemale Géejawaay ak Kër Masaar xam nga doxantu champs nga doxantu Brouette de ngay nga yemale. parce que da nga gis loo xamante ni ay métti métti ay danger yoo xamante ni yow mën nga see ñàkk sa bakken ndax tey avion sax wóorul d'accord mais gaal dafa wër di nga dugg gaal par exemple dem Europe. danger yi ci nekk pour te dire boog ma tënk tuuti rek ndax du ci xaj di nga gis léeg-léeg nit ne ci gaal gi dem ba benn instant mu sonn wala mu pertivé jànnaxee di waxtu xam nga. xam la ma koy exactement nga jekki saar di waxtaan ak nit mu dee sawet mais duñ ko yóbbaale Espagne de non non dañ koy sànni ci géej gi. nga bokk ñu ndey bàyyi ñu koy tëmbal nii continuer sunu yoon ngay daw ci gaal yi si ndox mi jéggi méditerranéen noonu lañ koy waxee euh, océan Atlantique bi xam nga donc mu nekk foo xamante ni bato yu mag yi sax mënuñu jaar foofu dañ koy teggi léegi gaal yu ndaw ndawaan yi nag ñoo ko fay dem di fa jaar di dem Europe parce que day moment boobu li ma gisoon mooy Sénégal metti na donc euh, jafe-jafe yi metti na donc gars yi dem di ñëw ñu ngi ñëw di réagir di ñëw di def ay affaire xam nga yow mi nga xamante ni yaa fi nekkoon di góorlu liggéey kan nga gënuñu la doon dóor ko tuwaar waaw mais da ngay gis ni saa su ne xam nga waaw yaakaar bi mu ngi foofu daal moo tax xëy na xam nga gaa nit ki di am tolluwaay boobu bay songu ay gaal di ci demee Europe way foofu laa jaar man kon kon mu nekkoon mu nekkoon lu lu doy waar la xam ni man sax am nga xaw naa xaw a kii nii tuuti xaw naa xaw a stéréo tuuti ndaxte. <laughs> dama ko tënk. <laughs> waaw waaw parce que parce que. <laughs> biir gaal gi day am góor. di amaale jigéen. foofu laa bëggoon ay xale. di amaale ay mag. xam nga ñuy jaaree Maroc par exemple wala Libye euh, jaaree foofu duggee ko Europe. ñuy jaaree Italie ñuy jaaree Espagne majeure partie bi Espagne ñuy jaar. donc ñi nga xamante ñoo dem ba marok ñooñu peut-être distance su Maroc ak euh, ak Espagne sorewul ndax am na fooy toxlu si Maroc da ngay seen nii maanaam jeneer yi sans pas dire que da ngay seen ay étage wala dara doo seen dara da ngay seen nii rek ay lumière yu lay waral nii Espagne mu ngi nee mais foofu gàtt na mais y a trop de danger quoi bu dee nag ñuy jógee Sénégal par exemple di ko jaare ci yoonu géej mm-hmm. da ngay gis ñoom am na ñu ci def ay 20 jours am na ñuy def 15 jours am na ñuy def 9 jours ça dépend. man nag def naa ni li ma jaar ci yoon boobu noonu sama jaar-jaar xajul ci émission bi de da ngay jéem a tënk rek xanaa man def naa Espagne ñu delloo si ma ca jamonoy Ablaye Wade laay wax ma dem ba Espagne ñu takk sumay loxo mënatañu ma dugal ñu avion. wàccee ñu Dakar booba jamono kii moo fi nekkoon euh, Léopold Sédar Senghor ñu wàccee ñu foofu ku si nekk ñu jox ñu sandwich ak benn <laughs> dix mille francs <laughs> je me rappelle koy maa ngi koy maa ngi koy fàttali. bi fi njëkk wàcc ñun la ñun la njëkkoon refoulé ci booba temps ci même semaine ma réglé waat teguwaat ne damay dem ngir lan uti teraanga teral suma yaay teral suma baay. mais pas damay dem di xaru ji de xaru xaru tax ma woon jug de dama bëgg li sama moroom yi am tey ëllëg man ma am ko tu donc teraanga moo ma yóbbu moo taxoon ma jaayante woon dem taw barki Seexul Xadim rëccuwuma ko ba tey mais dugaluma nag influencé wu kenn nag pour maanaam mu ñëw dem. pour ñu tëj ndax man bu may dem Barcelone nii giraawaati suba rek la mën damay dem su may dem damay fëlaale dem aéroport xam nga ay naan ay BD du ay foofu. dugg naa ko dem. attaché ba ceinture. attaché nag takk nii mas naa ko def benn euh, jamono bu kay rek quoi du du du téléfilm. dëgg la comédie laay def mais <clears throat> li may wax c'est une histoire vraie. ma demoon fi Maroc léegi jamono bi ma demoon Maroc c'était 2016 su ma juumul ma demoon benn vacance bu ndaw nii petit vacance liggéeyoon ba vendredi jot. jeudi ma ni jeudi vendredi samedi bi dama koy passé Maroc ci dimanche bi damay ñibbi Espagne ma liggéey parce que distance bi soriwul des fois ay billets offerts yoo xamante ni du la dikkee dara ay 50 euros xam nga 80 nga dem Maroc taf taf donc bi ñu duggee ci vol bi rek man comme lundi dama war a liggéey léegi dama tëdd nii quoi te genre bu njëgën naay noonu di nelaw benn nelaw benn père sunu benn papa ne ma sëñ ma ne ko ah, mu ne ma nelaw man ko waa dama war a xëy suba mu ne <laughs> <laughs> <laughs> fekk boobu moom dafa am visa xamul ndax bu yeggee dina dinañ ko bàyyi mu jàll wala duñ ko refoulé comprendre donc euh, mu nekkoon affaire bu reetaanlu mm-hmm. bi ma wàccee daf ma ko teg mel ni ñoo bokk ndey ak bàyyi ba ci poste douane bi mm-hmm. mu teg passeport am ñu tamponné lépp et man la ko kott nii xam nga ba ma génnee ko biir euh, aéroport bi léegi nag problème am mooy maanaam man waruma dem tànk ñu koy jël si ñëwuñu mu nekk loo xamante ni mbir mu doy waar la te pour man métti métti waayu dëkk bi rek ko waral ba ay paa yu béjaaw bëgg a dem Europe kon Sénégal metti na man Sokono stress man borom Barcelone. bi may am 19 ans laa jóge fii dem Europe dund naa ba am 19 ans masumaa liggéey Sénégal dajale nii si samay 19 ans 50 mille nii dajale ko nii non masul am tey yàlla dogal na amuñu lu ñu gaañ nag ñu ngi sant yàlla <laughs> dama koy may donc mu ngi mel ni tey kenn du doyal xaalis kenn du ci doyal. kenn du ci doyal milliardaire bi sax boo toogoon ak moom 10 000 romb nii mu jéem ko njëkkanteeg yow nga yor alal ju dul jeex sa bàjjen feebar ci kër gi mënoo ko sax faj lu ci bëri moom moom la gis Sénégal te bu deewee yaa koy xam nga jëndal nag bu rëy defal ko ay tànt bi affaire